seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Lac de Guiers 2 mënu jàpp ne VIP yi dañu ko zappé Lac de Guiers 2 doon xaar combat te doon yeeru Gris Bordeaux doon moom Lac de Guiers 2 dañu ko mujjee zappé revanche bi ñu doon wax digganteem ak Boy Niang 2 te nu fas yéene woon a leeral boobee sax mujjee ko mujjee jox Tapha Tine Lac de Guiers 2 des terrain ba loolee moo waral journal ba xëy samp xam ndax ñàkk a bëreeg Boy Niang jural toog def année blanche waalo bi ba léegi nii nekkagul ci plan promoteur yi mbooleem promoteur yi fi wax combat yépp dañu ko teggi bi saison bi di waaj a ubbi moom Lac de Guiers 2 ku ko waxoon ne doo bëre ak Gris Bordeaux du ko gëm au pire des cas mu am Eumeu Sène loolee la bëggoon waaye fi mu toll nii képp ku ko bëgg da koy ñaanal mu bañ a ane balance lii di raam si moom di xeeñ si moom boo moytuwul ñàkkaam combat lay doon gannaaw VIP yi am nañu combat Lac de Guiers 2 la ko lamb booleel ñaar ña lamb boole guddi yi ba tax jamaykee di jaxaar tànk tubéyam mooy tàng jër ak Big Pato moom jamaykee ma fi defoon Sénégal diggante bàyyi ma njoon a xooyantaan moo fi a defaat Sénégal ak Gambie ci diggante tàng jër ak Big Pato police ba ca Gambie ak police bi ci Sénégal a

dafa noppi ci mbir mi yéeyu si yàbbiwu si Babacar Diop ne ca tonn ne fóot bi mu toll nii lu njiig ñaar ñooy njaag Malick Ngom ba mu ñëwee ca tëj ga ñu tëj la wax centre ba nu doon formé mbër yooyu bëri lutte olympique nekkoon ca Thiès dañu ko ne ràpp yóbbu ko ca Maroc Al Jadida kenn waxu si dara kenn xamul lu ko waral kenn xamul sabab ba ñetti point yooyu la arbitre yi tegaal ca table ja yëngalaat coow la bu ñu jàllee ca lutte sans frappe bilaab 2019 2020 dañ leen di fekk ñu def journée 64 gala moo ci am mbëri gañe lu ci toll ci millions téeméeri nag ak juróom benn teg nañ ko mbëri jël ko Adrien Senghor 16 millions 300 mille francs lan fa teg loolee ñu répartir ko en 17 journées Sénégal gi 7 journées lan fa tëgg 13 millions 200 lan fa tegoon arène nationale benn journée 10 millions mbooleem journée yooyee rëg kenn gisu ko ci kenn déggu ko ci moom mi nu jàppe woon le roi des arènes de la lutte sans frappe kenn gisu ko saison ren bi ñeneen ña def bilan bu xaw baax ci saison ren bi mooy écurie Bada Dione 15 combats def 8 capitaine daan Yaxya Jóob 2 bu Soumbédioune R2 daan Mbay Tafatine bu Malika Mbay Xadda daan Alliance Baldé bu Abib Ndiaye Njaago daan Armée 2 bu Jàmmagën Aliou Diouf Cargo daan Armée Lourd bu Kër Massar Mbooloo Ahmed Lacrosse daan Petit bu Rock Énergie Tafa Leer 2 daan Digal 2 bu Duudu Bakasaar seen defet ya Boy Lo moo daan permis ñoom zéro arrière daan Moussa Guy gi Talfa bu Dóor Dóoraat daan capitaine Boy Melax bu Jëf Sooga nekk daan Aliou Diouf Cargo jàmbaar yi am nañu courage waaye grand yi ñoo war di bëre bu grand yi bëre woon fii dana xumb dana neex jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëtt yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah